am na ne balaa balaa mooy li am dëgg dëgg daal mooy man képp koo xam ne a jébbal na wajhahu jëmmam lillaahi ñeel yàlla mooy képp ku jébbal boppam yàlla daal waxu muhsinun te fekk aji rafetal la kooku daal falahoo ñeel na ko ajruhu ak payam xinda rabbihi fa boroomam te wala xawfun dit genn ak ragal xalayhim di nekk ci ñoom wala hum te déet ñoom yaxzanuna ñuy jàq nee ki nga xam ne du jar mooy jàq baa muy tiit daal mooy ki jébbal boppam yàlla tey rafetal man aslama wajhahu lillahi wa huwa nag mooy iman islam ihsan mooy ki gëm yàlla di wommatul yàlla ci jëfandigal ak bàyyi tere te di ko sellal te yàlla tax kooku nag moo xam yahud la wala nasaraan la wala arab la wala ajam la itam xam nga yahudi dañoo wax le nasaraan yi waxee te gëm yàlla moom ajuwul ci yahud ak nasaraan ak kudul nasaraan maanaam lii tax a dugg aljanna nekkul ci xeet wala ci der suñ borom da ko wane nag te mooy man aslama wajhahu lillah soo waxee nag man aslama wajhahu lillah rek indi nga iman ak islam ndax nit ki balay jébal boppam yàlla fekk na mu nangu amul yàlla ba pare loolu tax iman dugg ci biir kon bi nga indee islam rek fekk na imaan jiitu na ko kon ki bi jibbal boppam yàlla d'abord nangu na amul yàlla door ko jibbal boppam kon kooku am na imaan am na islaam su ko defee nag ihsaan bi ci topp mooy tasawuf mooy muhsin boobu mu andi kon man aslama wajhahu lillah wa muhsinun day dugal imaan ak islam ak ihsaan yàlla nag nee na moo xam muy nasaraan bi wala yahud bi wala arab bi wala ajam ku mën a doon daal ci doomu aadama yi képp koo xam ne jébb gëm na yàlla te wommatul yàlla jibbal ko boppam tey rafetal lu muy def yàlla tax kooku daal mooy ki nga xam ne payam moom mu koy nekk ci boromam subhaanahu wa taala te amul lenn lu muy jàq ëllëg baa mu di ko tiit moo tax mu ne balaa axa kay kii am aljana kay man mooy koo xam ne rek aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun kooku daal falahu ajrun فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لولا نعم